danoo woo ci mbégte rek ñëw ko fas yéene koo màggal comme ni nga ko waxee rek ñu jëfe ko ndigal li moo tax ñëw waaw. waaw li ma yëg kay moom xol bu set feex feex feex rek xol xol bu set maanaam xol bu set buy wax di yàlla loolu rek lañ ci yëg wax di yàlla waaw. sëñ Tuubaa li ma defal bari ren sëñ ma koo bari na lool macha Sëriñ Tuuba jagleel ñu ko muy almuntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di am kontaante rek di di wax ne léegi lañ bàyyi koo soowu ak Sëriñ Tuuba bisu sant la bisu kontante la bisu murit yëpp la bisu jullit yëpp la rawatina murit am nañ kontaan daal ci Serigne Touba bu wér man li ma defal bari na dèjà nii rek def def def la maa ngi tudd Ahmadou ñu dippee ma ko ma nekkoon tamit xel koom ku ma gis dana ma xàmmee bu baax ñu may wax Xaadim Sall kon dèjà loolu rek defar la tànneef laa daal ci Serigne Touba. خدان أسا فخر من هنا أسر بجس بجهر بلانتراي أكرن بربي أصحابه بليلا لقرب محل براي خد فاخ قبل خد باس فضل فدور والله ونف جاي جالي نوالي مبدين جاي نافل مساي باد الهاي مسجل خيوري إلى الخسوري باد النسوري باد بخاي haysun afaada man istafaada laysun abada xindatahaayi loxo ma naqib looxa jaayib looxa raa bilantaay daal <laughs> Cheikh mu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te moo xalifa général des Baye ak mboolem jullit di siyaaraan mboolem murit xanaa di dooleeku sant yàlla rek sant yàlla ak di ko gën a tuubalaat suñuy bàkkaar te xam ni mu bañ ñu jàppee suñuy bàkkaar yu bari te xam ne ñun ay jaam képp lañ mënuñoo def lu dul weesu mënuñoo weesul ay jaam suñu xol moo fees ba mënuñu wax di gërëmaat Cheikh Mouhamadou Mountakha baax a baax jërëjëf waay waaw maa ngi tolloon ci bi maliki zilmasa ya safihi yi abi ci sindiidi xanifatin ahmadan mahmudu yallaahu bi lawxi wal xalami mahfuusi summa bi si sikkal azimi wa bi kursi yallaahu وبالقرآن وبالتوريد ثم بما داود جاء به والروح الله بلع نعم صلاتي وتسليم عليه له والآل وسهب وأزواجي الله وأسب لنا علينا ربي عافعة وهب لنا رزق في الدارين الله منتقى يلا في أكتوبر نخلي دوسار نخلي سنتبا بقول نوحنا سنجاريم كوني دفني دا وون ماغني سنجاريم دين خيال نخلي تفيق سنتبا لا تفيق سنغال لا kon nañu war a góorgóorlu li na daa war sax da wara sax ñaa ngi ko da wara sax na li ku ñu ne xool nga soxol na sedd ma ngi ñaan suñu taxa yalla fi ak du wer di ñaan daal bu na may ñaan rek suñu ko dafa sedd liggéey bi daal wax dëgg yàlla sant yalla baax di ñaan baax da suñu li ngeen def nii te ko kanam ñi ñaan ñepp dal bi la ko fi nekk si daal sa aaju fajuna ku fi sa aaju fajuna wax di sëñ tuba baax te ñaan seen mu taxa yag fa te wer kontan rek bég lool waaw bég lool kontan rek kontan bég bu baaxa a baax loolu laay ci bis bi tey maaleykum salaam bu baax ñu ngi ziar bu wër. ñu ngi leen doolee ziar bu baax a baax tawféex yi. noo leen dundee bis bi. waa di sant Serigne Touba bu wër rek ndax daf fii ngeen ñëw ni mooy wu sëñ Basiru sëñ Basiru Mbàkke mu finance euh, bàyyi moo nekkoon finance sëñ sëñ Baara Mbàkke kon mu tuddee waaw bis bi dañ ñu ngi koy waajal bu baax baax gis ñu ngi ñii ci seen kaw gi ci lañ nekk ni maak jëwri ni waaw vraiment di waajal bés bi ndaxte dañoo ne euh, le 11 bi suba. ci lañu def euh, ay xasida journée xasida waaye nag ñun bu ñu ko jàppee journée ñaan lañ ko jàppee ñun ñun taalibe yi loolu lañ ko jàppee ndax gis nañ li fi xew ak dañuy dégg saa ne muy mbas mi ñun loolu journée ñaan lañ ko jàppee ah, sëñ bi moom sëñ Mountakha moom dafa xereñ moom moom lu mu wax rek noonu te lu mu xalaat loolu mu baax moo tax ñu ci xaaj ak seen xalaatuñu amuñu sax réflexion ci loolu dañuy teew kàddu ba mu jibee rek ci lañ ñëw waaw ah, di kontaan lool. ci teewaay ñëpp nag ci bës bi ak ci ñuy waajal bés bi nii waaw sama jëriñ moom bu mën nañ ci mën nañ ci yokk yokk dara bu ñu bëggee yokk si dara. jërëjëf ñoo ngi siyaare. waaw sang bi ñu ngi lay siyaare bu baax. noo leen waajalee café gi. waaw xanaa nag eh, ànd ak suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy sëriñ Saliou daanaka ne mooy axlu mën naa ne daal mooy axlu moom Serigne Saliou daanaka ne ñun moom duñ si sori sax parce que ay kii lan rek dañ koy daal di jox rek daanaka kon mu doxal moom mën na la see wax lu bëree bëri bëri sëñ Saliou. salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla euh, julli ci Seydina Mohamed sang-sang yi ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax baax ñun ay taalibe Serigne Touba rek lañ mën a doon euh, Serigne Touba xamul euh, diglu digluwunu lu dul bernde Euh, ba tax na tey ku tedd ki bu wootee journée xasida pour lu aar réew mi parce que ñun jàpp na ni dafa bëgg aar réew mi euh, ñun nag amuñu loolu suñ doole ak liggéey sëñ Touba ba tax na ñu ñëw pour berneel jàngkatu xasida yi ci café Touba yi waaw euh, yoonu murit nag moom nii rek la mës a doxee ci àdduna waaw ñun amuñu loolu sëñ Touba te buñ jàkkee tamit ci sëriñ Touba la ñuy bootu kon tey ñun ñu ngi santaat sëriñ Touba ci li ma mën a wax mooy ñu ngi santaat sëriñ Touba kafe gi nag moom nii lañ koy doxalee waaw kafe gi moom nii lañ koy doxalee waaw yoonu murid moom ku ko xam ak café euh, xam ne fu xasida jóge moom kafe dafay daal di euh, daal di waaw yaa ma gën a xam waaw ñun moom lii lañ xam lii lañ sunu waajur jàngal euh, taalibe bëgg Serigne Touba fu taalibe Serigne Touba yi nekk ñu berneel leen ci lool wow, dox waaw ci lool lañuy dox ba tax na loo waral ñu jógeen ba Ndakaaru ñëw jël suñu addiyee jëndee ko café Touba yi ñëw di berndeel jàngkatu xasida yi boobu ba léegi nag ñu ngi fi nelawun Serigne Touba ka jar Dakar lañ jógee euh, ay 8 heures ci guddi lañ egsi segg café gi ñu ngi nii yaa ngi léegi gi buñ xëyee dañuy fas yéene xelli café gi berne mu jëm ba 5 heures heure bu ko sëñ Muntaxa bëggee bu ko fa bu fa xas day taxawee ñu arrêté kafe gi bu continué waatee fajar ñu continué waat café gi waaw ñun amuñu lu dul sëñ Touba bu fanaanaatee tamit ñu fanaanaat rek waaw bernde ba fajar rek waaw te yooyu loolu lii ngeen gisagum kafe gi mais bu ngeen génnee di ngeen gis leneen loolu café bernde yaa ngay taxawaalu ca mbedd ma jaajëf jërëjëf sëñ Touba. salaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. tey santaat Serigne Touba mi nga xamante ne dañoo nama dimbali Balla ak dañoo nama dimbali ndax dikk gi fii day tawféex ci ñun ndax ku la woo ci jaamu yàlla woo la ci alxuraan woo la ci xasida kooku dalaa nama dimbali ñu nag amuñu lu dul Serigne Touba te murit moom ndigal mooy jëfe dañuy santaat bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal Mbàkke Balla mu yàgg fii lool te ànd ak wér Balla yi sax dañoo nam dimbali ndax ñun kat dañoo xamul ci suñu jëmm dara dañoo mënul dara mu raxas ñu ba ñu set xam nga ne alxuraan ak xasida ku la ci woo kooku moom tawféex la la bëgg a wutal ndax benn bayit rek xajul ci àdduna ñu koy jàng nag ay limi lim kooku dañuy santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax lii nga xamante ne moom la ñu woo di ñaan ci barke borom Touba woote gi yàlla na ci nekk yokkuteg murit yëpp yëpp yëpp murit yëpp yàlla na leen Serigne Touba yokk ba ñu yëg ba jàngoro jii ñu fiy tiit ak a wax yàlla na ko Serigne Touba raxas ba mu set wecc wecc wecc ñëpp wér nekk si jàmm mën a liggéeyal Serigne Touba te yàlla nañu Serigne Touba dolee taxaw kàttanal ñu yàggal ko fi lool balay sax mu yàgg fi lool mook suñu sang bu tedd bi Serigne Cheikh Jëmm Fall yàlla yàggal ko fi ndax ñun kat lu ñu am ci Serigne Touba rek Cheikh Ibrahima tax ndax faal yaaram mooy bunt bi ñu ngi sant tey gërëm yéen ñi nga xamante ni yéenay waa télé bi waa équipe bi yàlla na leen Serigne Touba dolee taxaw liggéey bi ngeen ci liggéey mu nekk seen yokkute ak seeni i ubbite ci doole Cheikh Ibrahima Fall kenn ku ci nekk daal loo fi yéene ak loo fi indi yàlla na ko Serigne Touba saafara yàlla na ñëpp yokk yàlla na ñëpp wér dañu santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax ñun bu ñu ñëwee fii ci tawféexu Serigne Touba lañ ñëwee ndax ku Serigne Touba am ci yow ak ndimbal rek mooy nga teg fii sa tànk waxuma dara sax ngay déglu toog di xoole rek ak tawféex la. waxatuma rek nga ñëw nekk ci waañ bi di xitmaal sëriñ bi loolu yëpp day ak tawféex yàlla nañ sëriñ Touba doolee kàttanal doole ñoo dooleel ba lépp luñ fiy sàkku si yàlla nañ ko sëriñ Touba nangul gën gi nangu te ñu toog ba màgget ak sunu sang bu tedd bii bàllay sa mu yàgg fi lool mbàkke balla lu mu yàgg doyul ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu fi waaye indi yàlla na ko suñu borom faj ci barkib sëriñ Touba Xaadim Rasuul sant nañ leen bu baax jërëjëf wasalaam. di boo xam ne bis la boo xam ne sëriñ ci Ahmadou Mbàkke keroog bi koy sëriñ bi wootee ñu dem ci gën a wax ko dane tey bisub rakkaaju la kon na ñëpp rakkaaju waaye bis bi nag bis la boo xam ne daa sigil yoonu murit sigil yoonu lislaam bis la boo xam ne képp koo xam ne ñëw nga fi teg fi sa tànk na nga xam ne da nga fi jëlee ay tawfeex ak i xéwal ba faw si barke Serigne Saliou tey nag ngeen ñëw fii si kees gi nga xam ne mooy Matlabul Fawzeyni di kees gi nga xam ne mooy keesu Seydina Serigne Saliou di kees gi nga xam ne fi la ko njaay àll gi fekkoon ak gaynde gi di bind njaal gi teg ko ñaari tànk yi mbind ma yàqul mbind ma doful dara sikku ci muy kees gii ñu nekk ngeen fekk fi nag waa ñuy wax jàmbaari Xelkom di dongay boppam di dongay tërbiyam di donga yi nga xam ne sëñ bi yaral ci boppam ci loxoy boppam ñu dajale seen ñaqi bopp dajale seen pas-pasu bopp fas yéene kaa delloo njukkal fas yéene kaa séddale ci biir kër gi muy ay teraanga yoo xam ne ay xeet yu bare la ndékkee ngi ci kafe ngi ci meew ngi ci ceebe ngi ci tufee ngi ci lépp a ngi ci lépp ñu ngi fas yéene kaa delloo suñu sang ba a Cheikh Saliou mbake kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm leen ñaanal suñ Tuubaa defal leen tawfiq ak xéewal si barkeb Seexna Ahmad naa suñu yaakaar ja si barkeb Serigne Saliou mbake